yenn interrogation yu ñu war a poser wu. mooy yan. Euh, bu fekkee li tax président Macky bëgg a toxal élection yi mooy tuuma bi ñu tuumaal et juge conseil constitutionnel bu fekkee ne egg na foofu ci firnde yi mu am ne tuuma yi am na ci ay firnde te firnde yi taxaw na loolu mooy problème am na. Mhm. li ñu ko war a laaj mooy bu fekkee ne tuuma yi dëgër na. premier ministre bi lañ jiiñ ne moom moo guerre kon lu muy toog ak premier ministre kooku nekk premier ministre du Sénégal ba léegi. donc moom mesure yi mu waroon njëkk a jël nekkul laal le processus électoral. Mhm. parce que ça n'a rien à avec le processus mhm. électoral. Mhm. mesure yi mu waroon njëkk a jël mooy une mesure conservatrice euh, administrative mooy d'abord demander le premier ministre de démissionner pour être à l'aise et aller répondre devant la justice. ci. Euh, accusation yooyu bu fekkee le président il a des éléments fiables qui l'ont poussé à vouloir repousser l'élection. les deux sages mises en cause nag. waaw foofu laay laay mujjee. Mhm. donc normalement procédure bi moom ni mu ko waroon gérer warutoon dem xool ci processus électoral dafa waroon xool lan la yoon. Euh, wax ci euh, loolu bu amee. loolu bu amee lu yoon wax mooy nañ dem tribunal. sages yi ñoom bi ñu leen accuser ñoom loolu lañu def. Mhm. ñoom dañoo dem porter plainte pour yóbbu affaire bi ci tribunal. loolu tribunal moo ko war a àtte léegi comme tribunal moo ko war a àtte président dafa war a yeewi premier ministre am ne ko demal uyu tribunal euh, ñii liñ la jiiñ ay firnde yu wóor lañ ma tegal. Mhm. nga dem uyu ji tribunal au magistrat yi ñu incriminer ñu suivre la procédure parce que c'est des hauts magistrats aussi yaa a une procédure mhm. affaire yi ñu réglé ko tribunal. mais warul am incidence ci processus électoral parce que deux magistrats mis en cause bu fekkee ne c'est euh, euh, loo firnde am nañu firnde yu wóor mënul yàq la composition du conseil constitutionnel bi nga xam ne sept lañu. Mhm. donc ñu continuer le processus électoral. parce que am na ay jamono kenn ñàkkoon ci bakkanam am ñaar yu ñu war a remplacer teewul ñu ngi doon continuer seen seen liggéey tranquillement tout à fait d'ailleurs ñett la ñu waroon remplacer. voilà euh, remplacer wuñ leen. te mhm. mu ngi doon continuer mhm. donc. Euh, bu fekkee ne ñoom li ñu wax ne la ñu yor ci ay accusations lu sérieux la c'est pas du toc et moi j'ai j'ai la conviction que euh, li ñu yor c'est du toc parce que si c'était pas du toc euh, dinañu am procédure vis-à-vis du premier ministre te si c'était pas du toc aussi man je ne comprends pas lu tax ñu xaar ba ñu éliminer candidat boobu mhm. ñu soog a wax ne les magistrats sont corrompus alors que bi muy njëkk a publier la liste provisoire